Djibril Wele maa ngi lay nuyu. maa ngi lay gërëm di la sant Moreau. voilà Wélé nga nekk secrétaire exécutif bu euh, Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac ñu gën ko xam ci LISTAB kon tey jii dañ leen di laaj fan ngeen toll ci xeex bi euh, soxal wàllum tuxum cigarette ak yu ni mel fii ci Sénégal. waaw ah, maa ngi lay remercier Moreau ci invitation bi donc di euh, remercier auditeurs yi ñuy déglu yëpp à travers donc vos antennes. waaw LISTAB bon mu ngi ci li mu boobu ba tey muy euh, vraiment xeexum cigarette xeexum pône donc fexe vraiment ba jàppale askan bi euh, ci li nga xamante ni moom mooy euh, xeexum cigarette ñuy mën a def ba moytu ko ni ñuy mën a def également ba bàyyi pour ñi nga xamante ni donc ñu ngi ci je pense que ci loolu lañu nekkoon depuis boobu et yàlla mu ngi def donc ñu ngi ci am ay ay résultats travers donc jéego yi nga xamante ni donc ñu ngi koy teg donc muy lu am solo Euh, et actuellement comme ni ma ko waxee tànk bon lista mu ngi nekk donc di préparer pour def son bilan parce que euh, après quand même quelques années c'est important donc ñu mën a toog euh, xayma xeex mi fu mu toll li ñu jot a def lan lañ ci def ñun lan moo des et je pense que ci loolu la ñu nekk di waajal nii muy assemblée général donc bu ñu war a bu ñu war a dem donc ci fan yi di ñëw Euh, bu loolu weesoo euh, c'est important ñu revenir un peu donc ci li nga xamante ni moom mooy euh, xew-xew parce que yu bari quand même xew na fi mooy amoon nañ fi loi loi anti tabac boo xamante dañ ko voté en 2014 voilà loi boobu noonu tey moom lañ nekk di mettre en œuvre parce que am na ay décret d'application am na ay arrêté yi nga xamante ni donc ñu ngi koy mettre en œuvre donc ci mise en œuvre boobu donc lañ nekk et ñu gis ñu vraiment mise en œuvre bi Euh, mu ngi dem nànk-nànk ah, ci ci lu ëpp parce que boo demee sur le terrain di nga gis ni vraiment Euh, interdiction donc de la publicité c'est effective parce que gisatoo fenn fu ñuy defee publicité ci mbedd mi ak ni melon bu njëkk donc mooy wane ni vraiment euh, yëf yi donc euh, comment dirais-je mu ngi mu ngi mu ngi am ay ay jéego bi ci topp mooy Euh, am na quand même euh, ay tuuti jafe-jafe donc jafe-jafe yi euh, c'est surtout par rapport ak ñaari texte réglementaire yi nga xamante ni ñoom ñoo sooxe xeex bi mooy cigarette bi war a génn ci boutique yi parce que dañu dem ba jàpp ni cigarette nekk dafa nekk produit boo xamante ni waruñu ko boole ak yeneen produit alimentaire donc yi ñuy jaayee ci boutique parce que dafa toxique Euh, parce que li ci nekk ci poson dafa bari donc muy loo xam ne dañ ko war a génnee foofu yóbbu ko ci ay bërëb yoo xamante ni moom kese lañ fay jaay donc loolu muy benn décret d'application euh, donc bu war a compléter euh, la disposition réglementaire donc bi organiser njaayum ci Sénégal donc malheureusement texte boobu mu ngi toujours sur la table du gouvernement bi ci topp mooy chicha bi. également am na texte boo xamante ni moom la ñu woowee arrêté ministériel euh, conjoint signé déjà par ñaari ministres yi parce que arrêté boobu signé nañu ko pare ministre du de la santé ministre du commerce malheureusement effectivité modeste donc ba tey mu ngi ci taawul bi également ñuy xaar bu ko defee ñu mën a vraiment interdire euh, njaayum chicha fii bi Sénégal euh, parce que gis nañu chicha mu ngi def ay dégâts voilà parce que xale yu bari donc ñu ngi koy consommer xamuñu ko dañoo jàpp ni peut-être euh, luxe la wala foo wala bon du cigarette alors que euh, organisation mondiale de la santé ak experts yi ba ñuy defee seen xayma dañu jàpp ni benn séance su chicha boo xamante ni yaa ngi toog di ko tox c'est l'équivalent donc de euh, comment dirais-je téeméeri cigarette donc yoo yoo xam nga loolu bon téeméeri cigarette mooy juróomi paquet cigarette donc xam nga loolu dafa bëri sans compter également maladie yi nga xamante ni donc mën nañ ko di ko wàllante voilà donc loolu muy vraiment ay jafe-jafe te malheureusement suñu loi da ko prévoirul voilà comme suñu loi prévoiru ko euh, loolu moom moo tax donc ñun ñu jël texte boobu pour fexe euh, compléter fin vraiment ñu protéger suñu ay euh, jeunesse su réew bu ko defee ñu mën a bañ a am ay jafe-jafe ci at yi di ñëw voilà donc loolu nag je pense que ba mu amee ba tey LISTAB mu ngi dox ay jéego Euh, ñu ngi porter le plaidoyer ñu ngi fexe dajeek gouvernement di également à travers seen ay émissions à travers également euh, ci lépp li nga xamante ni dinañu permettre vraiment ñu mën a def plaidoyer bi euh, ba information bi jàll ba gouvernement également am ci comment dirais-je Euh, xam ci lim ci xam ba jël ay initiative donc loolu moom mooy vraiment suñu ay euh, suñu ay mëbët donc ñu ngi ci voilà donc si jéego yooyu la ñu nekk te di ko continuer di ko dox parce que tamit si suñu mission la bokk voilà loolu moo tax depuis boobu donc ñu ngi ci ñu ngi ciy dox di ci def en tout cas li war pour que vraiment ñu mën a jël ay disposition donc ci côté boobu afin ñu mën a protéger donc ñi nga xamante ni ñoom ñooy xale yi euh, parce que ñoom ñooy quand même le plus souvent ñoom ñooy tux chicha te ñoom également donc ñoom ñoo nar am jafe-jafe yooyu ëllëg beneen bi mooy euh, gis nañ ni fan yi weesu gouvernement Mali donc euh, interdit na chicha ci Mali donc ñu ñu rafetlu ko parce que dëkk yëpp dañuy waxante donc lépp lu am ci beneen dëkk rek ñun dañ koy xam bu ko defee ñu dañ ko rafetlu à travers un communiqué voilà donc di ñaaxaale tamit état du Sénégal pour fàttali leen ni Mali ñun ñoo ko njëkk jël arrêté ñoo leen njëkk jël arrêté mais booba tey ñun suñu arrêté mu ngi ci circuit bi bon bu fekkee le gouvernement malien bon ñoom ils sont conscients pour protéger leur jeunesse xaw ma ñun lan la ñuy xaar donc ci ci wàllu boobu noon donc je pense que occasion la également pour relancer encore texte yi occasion la également pour interpeller le gouvernement pour wax xamal na leen ni euh, seen responsabilité la ah, bu fekkee xale yi ñu Euh, jëfandikoo lii seen responsabilité bu fekkee la ku nekk mën nga ubbi sa boutique mën nga ubbi sa kër bar à chicha euh, di ko jaay comme nu mu la neexee je pense que demain s'il y aura des conséquences c'est la responsabilité donc du gouvernement loolu du ñu euh, on ne cessera quand même de le dire parce que bu doon liste kese la yaakaar naa ni baar yëpp tëj nañ leen mais malheureusement donc euh, relève donc euh, di gouvernement di Sénégal donc moo war a jël euh, euh, disposition yooyu bon ñun nag duñu du ñu sonn ci di leen relancer di ko wax donc di di ci dox ba vraiment mu mu pour que parce que nous avons quand même les mêmes parce que ñun notre rôle c'est vraiment d'accompagner les efforts du gouvernement mais aussi de faire un plaidoyer pour que ñu mën a changer yenn politique yi donc yu ci bari ñoo ko dox ba mu agsi fii voilà euh, parmi également résultats yi nga xamante ni jot nañ ko am tey ñu ngi ci euh, féliciter di ci remercier l'ISCAP ci liggéey bu def ak tous ses membres mooy euh, ni ñu def ba vraiment MTOA tëj NM3 tëj muy usine boo xamante ni moo njëkk ci usine tabaay depuis 1957 ah, donc euh, mu déployer ses activités au niveau de la Côte d'Ivoire loolu je pense que bénéfice la pour le Sénégal avantage la également pour euh, le Sénégal donc euh, bu ko defee au moins quantité tabac wala bi ñuy produire au Sénégal mën na wàññeeku comme ça loraange yi dina mën a wàññeeku euh, voilà état également prise en charge bi ñu def pour faj ñi am cancer wala ñi am jafe-jafe ci cigarette également mën a wàññeeku donc je pense que loolu daal moom mooy euh, li nga xam ne moom mooy. Euh, hmm. situation ngeen ngeen dénombré rien qu'à Dakar quatre cent bar chicha ak tamit yeneen yi nga xam ñu ngi ci les quatorze régions du Sénégal. Euh, tey jii euh, l'ISTAB lan lay def exactement pour ñu mën a tëj euh, bar à chicha yooyu parce que ñëpp d'accord nañ ni chicha la muy andi ci conséquence ci wér-gu-yaramu doomu aadama bi cigarette bi sax du ko daal di def donc mu nekk di def ay ravage comme ni nga ko waxee mu nekk modèle jeunes yu bari jàppee ko sax ab frime alors que mi ngi gàllankoor seen wér yaram sans pour autant ñu ñu xam ko tey jii l'ISTAB maanaam focus si wàllum chicha déjà lan ngeen di def. waaw bon comme ni ma ko waxee léegi rek déjà euh, jël nañ euh, euh, comment dirais-je benn initiative mooy mettre la pression parce que boo xoolee la dernière fois je pense journée mondiale sax lañu génne woon chiffre quatre cent bar yooyu noonu te loolu c'est juste estimatif ça veut que bu ñu defoon xayma yu am yu am solo di nga gis ni vraiment dina ko weesu voilà parce que euh, estimation estimation donc la te régions yi également la ñu leen donc li ñuy def vraiment mooy di continuer interpeller gouvernement à travers donc ay euh, communiqué à travers également donc ay euh, activité de plaidoyer pour que vraiment au, au plus tard euh, ci bis yu néew donc ñu mën a accélérer li nga xamante ni moom mooy comment dirais-je Euh, application euh, texte boobu noonu parce que sans sans sans l'application de ce texte Baar Achicha yi mun ñoo tëj parce que pour ñu tëj leen il faut que décision bi génn te décision bu génn euh, Baar Achicha yi du du mën a tëj te chicha bi du mën a ditraire di dugg Sénégal loolu nag li ko waral je pense que du industrie tabac rek mais lobby yi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw chicha voilà lobby yooyu également on les avait signalé signalé woon nañ ko. mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy def commerce boobu noonu te ñu xam leen ràññee leen donc ñooñu également seen intérêt comme day menacé xëy na loolu moo waral vraiment euh, retardu yenn textes yi bon loolu nag je pense que li euh, gouvernement mooy tànn entre santé population ak intérêt benn groupe bu nit voilà donc euh, vraiment ci côté boobu ñun dinañ continuer vraiment di ci wax di ci dox Euh, di poser ay actes euh, su amee retard également ñu taper sur la table def point de presse aller voir donc euh, des leaders d'opinion des chefs religieux et cetera vraiment pour que ñu mën a accélérer mbir yi parce yàgg na depuis booba tey yàgg na voilà parce que Mali ñun ñoo ko jiitu te Mali tey interdit na ko ay Côte d'Ivoire yeneen dëkk bon alors que ñooñu ñëpp Sénégal moo nekkoon seen référence donc jàpp nañ ni tey Sénégal. bon euh, position bu amoon au départ gars yi romb nañ ko di dem e loolu li ko waral nag mooy manque de volonté bi euh, maanaam volonté politique bi ñu amoon au départ boobu dafa wàññeeku bu baax a baax wàññeeku bu baax a baax xamuñu nag lu ko sooxe mais quand même ñun dinañ ne di jouer suñu rôle euh, voilà comme comme ni mu waree ko voilà Djibril Welle Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. maa ngi leen di remercier di leen sant. voilà may fàttali yow yaay secrétaire exécutif bu LISTAB di Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac.